ma ni kon nag loolu mu daal jóge si ki nga xam que modi bassi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di yegg si ko dal yaato yaatal mu gën yaato exactement li ak lenen waaye ak les premiers actes yi nga xamni tam Ousmane Sonko teg déjà ko déjà euh, de son euh, si li nga xam que modi gouvernement bi nga xamni tam itam ko en place en tout cas mu nekk un résultat un gouvernement de résultat ñu si ëpp nag daal jàpp euh, cette euh, manière dont Bassir Diamay Faye cherche peut-être à démarrer les choses tout d'abord daal une transparence neen daal di yegg si itam si ki nga xam ne mu di kaw Mamour Diallo qu'en est-il donc après li nga xam ni itam révélé nañ ko euh, sa réponse tontam waaye itam est-ce que duñu xaar aussi sa convocation en tout cas mu nekk autant de sujets yoo xam ne itam war nañ ko daal di war a mën a si nu mu gën a exactement seen émission

Euh, di IG inspection générale euh, justement d'état euh, ba a li nga xamné que modi cour des comptes way tam ak li nga cour des comptes ak OFNAC office national bi nga xamné de moy walu ak mel alors naka ndaa di de lu nu mel est-ce que da nga ni concrètement que bassio ji mi ngi ki le président Macky ak déjà dans un premier temps dama koy rafetlu. Mm. Et je pense que ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Et c'est ça un état de droit. Dans un état de droit, il y a un principe fondamental appelé transparence. Mm. La transparence. La transparence, lolo, fumu amut. Japon ni sax démocratie du fa am. Mm. Ku nek da ngay def lula la fallu en réalité. je salue euh, entièrement aujourd'hui la volonté du président de la République euh, euh, qui est de faire euh, publier vraiment les rapports mm. datant de, 2019. Mm. Et c'est très important parce que vous lire le rapport, les rapports du mois, tu vois des choses. Aujourd'hui, Jarona, Jarna, nous faisons le parce qu'aujourd'hui, commencement, il y a des gens interpellés, mais avant l'olu, le monsieur qui le rapport, il y a rapport 2020. Mm. tu vois dans le département d'investigation, ñi nga xamanteni ñom ñoo yor département de déclaration de patrimoine du moins nga xamanteni ñom ñoo wara saytu ñi wara def déclaration de patrimoine ak ñi ñi ñi ko mais bo xol ci parti bobu lan lañ fa wax fallu mm. nee nañ am na xamanteni dañoo obligation fallu fàllu mm. war a def déclaration de patrimoine mais dañoo bañ ñoo xamanteni alalu askan wi ñoo xamanteni alalu askan wi la ñu yor

si vous vous rappelez très bien. les cours cour des comptes sur la mooy moi, mu me bu bari bobu di nit mais dañ demul ba paré daf daf sax cour des comptes hmm. des magistrats tu as vu donc en réalité da ngay ni de contrôle yi sa deug deug ñu ngi def côté mais en réalité nous, ñu ko da pour la plupart régime bi nous leen régime bi mo D'où même sax. normalement manqué woon appui nga jàpp ni exactement. Oui, mais loolu la parce que président de la république moo wax ni moom moo teg ci loxoom ci yenn dossiers yi. Hmm. kon na ngay jàpp ni lii la woon lii la woon scandale yi mais c'est des scandales très graves même Fallou dans un état normal dans un pays aussi pauvre que le Sénégal. Hmm. bon demee ci dénonciation yi lan lañ wax yan fee lañ évoqué pratiquement. corruption faux usage de faux enrichissement illicite. contrat yaa ma gre, mm. fictif à les emplois fictifs mais c'est une réalité falou. au niveau des ministères il y' a des emplois fictifs y' a des il y' a des gens qui reçoivent chaque mois leur salaire et qui ne connaissent même pas l'endroit où se situe le ministère Il faut nga affilier c'est du n'importe quoi dans cette république et que cela doit arrêter Il ko arrêter une bonne fois pour toutes. pour tout. Abdou ay waxu rapport ko a wax ñu bi du hmm. hmm. mais il faut lui faire comprendre que même cette euh, cette euh, cette action là de réduction de compte mais ça fait partie du travail du ci liggéey bi la bokk alalu askan wi tudd nga Mamour Diallo léegi hmm. mais Mamour Diallo Ousmane Sonko ko njëkk a ci affaire 94 milliards yi dossier bi di teug tembe. 2018 bataille. 2018 bataille. affaire di teug a tembe. Diop si bi ngay wax léegi domam sax xaw nañ ko ci tuddu hmm. mais job si affaire Covid 19 bi ni camion yi ñu doon délivrer ceeb yeeg yu yooyu etc. et tout ça mais fi lañu fekk xam nga rapport Covid 19 bi duggaguñ ci dañ ci dugg de manière détaillée mais le plus important mooy ñi ci gën a fës ak ñi ci ak presse bi ñi ci gën a wax. Mm. Mamour Diallo en l'occurrence euh, l'autre là Diop Diop Diop Tine. Mm, mm, ma mais Mansour Faye depuis que le président Macky Sall ñëw accéder au pouvoir mais makis fépp fu mu jaar c'est des scandales yaa ngi fàttaliku euh, ministère de de de defe na euh, hydraulique la woon. direction assainissement dénkoon nañ ko ko. et bañ ko ko fa dénkee foofu tudd nañ fa détournement de 6 milliards. ci affaire transport bi nii. tudd nañ ko si tamit tout nañ ko si. jamono jooju euh, jamono Covid bi mu yar wàllug euh, famille. séddale bi séddale bi wàllum séddale bi. tu as vu ñu tudd ko si. kon moo tax c'est des gens qui nga xamante aujourd'hui c'est des gens qui doivent être rattrapés aujourd'hui par la justice de notre pays. parce que aujourd'hui parce que à un moment donné des circonstances mieux ñëpp qui protection président Macky Sall lañ nekkoon. Hmm. le président Macky Sall en est conscient de cela. donc aujourd'hui fait qu'on ni le président hmm. Bassirou Diomaye Faye deful li mu def ni tay mën naa ni loolu France daani xëddem lay don alors si lolu exactement euh, Abdou Mbow wax na que ni. parce que dañ jublu si liggéey bi euh, noonu aussi li si bëri ay morom mais ñom do dar japp jàpp ni laataa ñoo il faut ñu xam liñ fi fekk manam def exactement l'état euh, l'état des lieux la situation actuelle du pays la ñoo daal di départir dans nga jàpp ils dañuy chercher à dégager leur responsabilité par rapport ak li fi prédécesseurs yi def exactement wala kon a nga jàpp ni doo nekk di euh, euh, indiwaat beneen changement euh, au Sénégal nouveau mais lii ci liggéey bi la bokk Fallou moom la wax léegi nga assainiraat la vie publique du loolu la ñuy def nii li bokkul ci liggéey bi booy leeral hmm. mais est-ce que xam nga ni la vocation première du président Bassirou Diomaye Faye c'est de redresser la situation bu mu fi fekk moom actuellement nii sa vocation c' de redresser teg teg réew mi ci yoon ba pare ba lépp jub moom loolu lañ ko njëkk a falee transparence am gisoo yim commencé def au niveau de de l' administration hmm. léegi boo demee ci administration bi am na ay système de pointage yu ñuy monter foofu nga xam léegi heure ngay liggéey wàcce heure hmm. ku liggéeyul doo am emploi fictif yi dalee leen day dañ ah gestion nébuleuse bi nekkoon ci administration bi lépp dafay dañ hmm. mais loolu ci liggéey bi la bokk te ñoom dañoo am obligation demain rendre compte moi tax nag fàllu lépp lu ñuy def itam aujourd'hui war nañ fexe ba aussi tamit sénégalais yi leen fal xam situation bi lañ fi fokk fekk mais nous ñëw nii rek en sonné avec qui sinon li dal ñii daf leen dal hmm. donc ce qui est sûr et certain moi, man je pense que la mouvance présidentielle aujourd'hui est en train d'assainir euh, la vie publique hmm. bi nga hérité d'une façon véritablement honteuse bi nga xamanteni non la président Macky Sall ak ay ñoñam doon ko gestionné. Mm. et que lool nak dafa wara nek lo xamanteni aujourd'hui nit ñëpp dañ ci wara am njort lu rafet itam. Mamour Diallo rapport da ko épinglé rek. batay nak man mënaguma firnde ni def mais rapport épinglé mais li am solo ba am solo moy que justice soit faite nañ leen déglu. Mm. li ñuy def buñ ci laalé ñu rëq seen ndigg teg leen ci yoon. parce que li ñu leen denkon aussi bañ leen koy denku ñu leen ko parce que ñoo ko wala dañ leen koo may wala dañ leen koo abal dañ leen koo dénk te li ñu dénk moomeelu askan bi la. Mm, donc sa convocation elle est imminente exactement. oui alors euh, mu nekk lu am solo donc euh, on a essayé nous de notre niveau peut-être.